jërëjëf mbokk yi ci ni ngeen ànd ak ñun seen télévision Futur Média seen émission sama kër nekk nag ñaareelu émission bu ñu jagleel saison bu bees émission bu ñu jagleel euh, wàllum immobilier ak wàllum suuf fii seen télévision Futur Média alors gis ngeen euh, semaine passé euh, defoon nañu reportage ci wàllum kon immeuble yi daanu ak ay bureau de contrôle mu nekkoon émission bu am solo alors tey nag dañuy indi yeneen pàcc xam ngeen nag émission bi dañ ko pàcc pàccal bu ñu jógee ci actualité dañ leen di jox li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum ñu ci bàyyi xel tout le temps euh, mais aussi lu jëm euh, tamit ci euh, bon plan mais surtout surtout découverte loolu yëpp seen émission sama kër alors tey nag si wàllum information dañ leen di xam leeg benn service bi nga xamante ni service bu am solo la muy service régional bu ñu jagleel wàllum urbanisme kooku jiite di Mahim Ndiaye tey nag moo ñu nar a daral la ñuy waxtaanee bokk na ca permis de construire yi nga xamante ni bëri na problème bokk na ca li nga xamante ni moom mooy euh, autorisation de lotir euh, certificat de conformité certificat d'urbanisme ak euh, autorisation de démolir loolu yëpp danañ ko tënk tey jii incha allah waxtaanee ko ak Mahim Ndiaye mi nga xamante ni moom moo jiite service régional de l'urbanisme fii ci dalwaay jëriñu dénk kon wàllum tabax mi émission bu am solo buñ ca jógee nag tey jii mbokk yi dinañu découvrir ni nga xamante ni moom mooy seen archive laata indépendance ba léegi lépp lu jëm ci wàllum këyit ñu daal di koy tënk daal di koy denc daal di koy numériser loolu yëpp on va découvrir ensemble mais aussi les bons plans avec euh, suñu partenaire assurance la Providence alors euh, mu nekk émission te information émission am solo ak euh, service régional bu ñu jagleel wàllum urbanisme déjà le directeur est là donc monsieur Marie Ndiaye donc voilà ñu leen ko présenté saa su bëriwul nag di feeñ vraiment merci si dalal bi merci beaucoup merci. mus mi ni saa ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci gune kër gi dalal bi neex na vraiment merci aussi sa assistante yi nga xamante ni ñoom ñooñu rek euh, daal di euh, dalal Mahim Ndiaye maa ngi lay nuyu jërëjëf Dieynaba jërëjëf mm-hmm. maa ngi leen di sant di leen dal ak jàmm mm-hmm. euh, yéen a ngi ci fii ci division régionale de l'urbanisme bu nekk CIRS boo xam ne mu représenté le ministère de l'urbanisme du logement de l'usine publique dans la région de Dakar. Mhm. Euh, division régionale de l'urbanisme nag dafa am ay services yu mu bokkal région bi. Mhm. ay services départementaux yu bokk ci moom. comme Pikine Rufisque ak Guédiawaye mhm. services yooyu ñu ngi def le même travail dans les départements que la division régionale waaw ci biir fii nag division régionale am na ay pàcc comme li ñu ko waxee mhm. ay samay collaborateurs mhm. di romb nañ léegi le bureau du permis de construire euh, ak Télédac bi ci voilà romb bureau d'étude lotissement waaw romb nañ aussi bureau bi nga xam ni fa la ñuy régler problème mu contrôle ak certificat de conformité ci suuf di nga gis les archives je pense que loolu mooy tënk la division régionale de l'urbanisme. dinañ xooli sax ci kanam euh, li nga xamante ni moom mooy archive yi parce que mooy suñu découverte euh, ci seen émission euh, sama kër xam nga ne nañ ko rek daal di rubriquer pour chaque émission ñu mën leen faire découvrir benn pàcc ci wàllum tabax wala lépp luy laale ci wàllum tabax. service régional donc de l'urbanisme wax nga ko am na pàcc yu bëri yi nga xamante ni donc tënk na ko autorisation de de lotir kon daf fiy jaar lu jëm certificat d'urbanisme si certificat de conformité ci permis de construire mi nga xamante ni ci kanam on va en parler ak autorisation de démolir est-ce que bu ci nekk mën nga ñu expliquer lan mooy njëriñ léegi ñu dugg ci compétence su division régionale de l'urbanisme. Mm-hmm. parce que loolu ngay wax mooy compétence yi. Mm-hmm. loolu moom mooy suñu liggéey. Euh, compétence yi mooy instruire dossier euh, autorisation lotir autorisation de démolir certificat de conformité euh, demande de morcellement. Euh, euh, certificat d'urbanisme mm. visé aussi ay demande branchement eau parce que demande branchement ndox yi ak électricité bi fii lay aw ah. donc yooyu yëpp donc loolu mooy compétence yi léegi bu ñu duggee ci pàcc pàcc euh, comme autorisation de lotir mm. fii lañ koy insurer mais nan lañ koy insurer xam nga lotissement doo jóg rek ni damay def lotissement mm-hmm. et que li ma la wax yëpp bu ñu koy def c'est dans le cadre d'une planification mm-hmm. parce que dëkk day am une planification donc plan directeur d'urbanisme mm. ak plan d'urbanisme de détail bi nga xam ni moom day gën a leeral li plan directeur bi wax mm-hmm. euh, loolu lotissement nag ñëw nekk une opération d'aménagement fekk ci yooyu lépp ci ay normes dinañ ci prévoir mosquée dañ prévoir marché mhm. dañ prévoir santé mhm. muy poste de santé mhm. muy hôpital muy di ça dépend ci lotissement bi ni mu day dañ prévoir espace vert parce que loolu tam dafa bokk ci dëkk cadre de bi cadre de vie ah, terrain de sport loolu mooy eh, lotissement li koy tënk léegi bu bu bu kiy déposé indee plan ak dossier yi ni muy demee dossier bi dina am titre de propriété dina am excès de plan dina am réglement inti réglement lotissement bi mhm. dina am statut association bon peut-être taxe bi nga xam ni moom ngay fay mhm. cinq mille francs la timbre bi vingt mille la loolu mooy conseil lotissement bi bu ñu ko jotee ñun dañ koy instruire mhm. instruire c'est-à-dire demander avis yi service technique yi muy kadas kadas xool ba xam kat yow li nga demandé est-ce que yaa ngi ci biir assiette bi li nga demandé domaine xool ba xam kayitu kër gi baax na est-ce que yaa ko moom wala moomu ko mhm. SONES dina dem foofu Senelec dina dem foofu mhm. Ageroute dina dem foofu ONAS dina dem foofu ñoom ñëpp xool ba xam seen ay réseau mhm. est-ce que impacté wul wala euh, laalu ci dara loolu bu lépp favorable ñu tënk dossier bi defal rapport présentation présenté ko directeur urbanisme urbani directeur urbanisme saytu ko. xool xool ba xam li ñuy wax ni yanu na maana. Mhm. bu lépp baaxee mu proposé ko ministre de l'urbanisme moom mooy signé lotissement. moo tax euh, saa yooyu jënd terrain sax dañ lay laaj ndax euh, am nga euh, autorisation de lotir mu nekk kon lu am solo lu autorisation de lotir cest à bu ci amul rek. Mhm. mun nañ jàpp ne sa daanaka suuf boobu valable gul. parce que il faut autorisation de lotir bi da cee nekk yaakaar naa noonu la. voilà autorisation de lotir moom. Mhm. vraiment kuy wut terrain ku nekk na nga leerlu ba xam fii lotissement am na fi. Mhm. voilà ci biir di nga gis ni. am na këyit boo tudd. muy certificat d' urbanisme. waaw mais boobu man dama koy faral di dégg en fait. certificat d' lu am solo la. Mhm. parce que loolu dina la leeral ci loolu. Ah. nit ñi nag far lu ñu koy demandé mais am na ay promoteurs yu ko xam parce que ñoom bu ñu def jënd ay terrain pour construire promoteur xam nga euh, il faut nga sécuriser li ngay def. Mhm. mais certificat d' moo lay leeral. leeral la fii kat ba xam ci lotissement la. parcelle bii nga kii nii lañ ko war a tabaxee. jox euh, la renseignement yépp. ne la par exemple ci euh, euh, lu ñu koy waxee ci code de la construction sax na la ciy renseigner. c'est-à-dire que ne la booy ci bébé rëpp nii nga ko war a tabaxee ak na le. loolu mooy certificat d'urbanisme mhm. c'est des renseignements yooyu demande mhm. c'est vrai que boo ko demandé moom certificat d'urbanisme du du këyit gu difficile boo xoolee taxe bi 1000 francs ngay fay. Mhm. ak timbre 500. loolu moom ngay fay ñu defal la jox la renseignement yépp yi ci war. Mm-hmm. Euh, envoyé ko maire parce que c' est une compétence qui est transférée. d' maire bi moo koy signé approuvé par le représentant de l' état. waaw loolu préfet wala sous préfet préfet wala sous parce que autorisation certificat d' wax nga ko ñu bëri donc euh, euh, duñ koy laaj te fekk ne euh, nee nga promoteur yi ñuy ñëw mais bu nekkee sénégalais lambda moo bëgg tabax par mm. exemple ci benn zone bien définie. su ko neexee mu ñëw wut certificat d' urbanisme. bàyyiwul kenn. parce que c'est une pièce boo xam ni ñëpp mën nañ ko demander c'est une bon pièce bu lay renseigner. Mm. di la leeral bala ngaa tabax wala bala ngaa dugg ci benn terrain. Mm-hmm. nga demander certificat peut-être euh, li ci war a ànd aussi peut-être di nga am këyit kër gi ngay demander certificat d'urbanisme. d'accord. excès de plan bi il faut nga am ko. Mm-hmm. wax naa la taxes yi léegi. Mm-hmm. léegi nag boo ko déposé ñun fii ci suñu service. ñu ñu ko. wax la réellement. li nga xam ne moo concerné parcelle bi wala terrain bi nga bëri ko. vraiment loolu ay leeral la yoo xam ne am na solo. mu nekk lu am solo certificat donc euh, d'urbanisme yee ñu ñu seetaan. Mm-hmm. Euh, mu nekkee am na ñi nga xamante ni euh, am bëgg nañ ay information ci la ñuy tabax fu ñu ko war a tabaxee ak nu ko war a tabaxee mun ngeen ñëw au niveau donc bu service régional donc de l'urbanisme pour kon wut li nga xamante moom mooy certificat d'urbanisme on n'en parle pas souvent wax nañu auto lu jëm ci autorisation de lotir wax lu jëm jëm ci certificat donc euh, d'urbanisme dañuy ñëw euh, peut-être ci permis de construire mais voilà. rapidement parce que après seen permis de construire boobu noonu dañuy wan su suñu téléspectateurs yi nan la ñuy duggee ci plateforme bi. voilà voilà euh, permis de construire am na autorisation démolir am na. Mm -hmm. mais moom tamit fii lañ koy instaurer euh, c'est une compétence comme ni ma ko waxee sànq. compétence mhm. transférée au maire. Mm mais dañ ni urbanisme mooy euh, bu ñuy instruire tamit mi ngi mel ni lotissement euh, dafa am këyit yu muy àndal. Euh, pour nga wut certificat de autorisation de construire il faut nga am këyitu kër. il faut nga am excès de plan cadastral. il faut nga am ay plan yoo xam ne architecte moo ko visé. ci autorisation de construire fii dans la région de Dakar. Euh, dossiers yi ñu ngi koy traité sous dakk mm-hmm. xam naa ñu ngi waaj pour mu dem ci yeneen région yi. Mm-hmm. mais ci kanam tuuti dinaa leen wan euh, benn dossier nan la ñuy dugalee dossier nan la ñuy traité dossier ci Télédac. Mm-hmm. yan pièce nag parce que moom dañ ni kenn mënul tabax ca amoo autorisation de construire. texte yi loolu la wax kenn mënul démarrer benn travaux ca. amoo autorisation de construire muy euh, bàyyiwul état bàyyi collectivité locale. bàyyi particulier bàyyi particulier. Mm-hmm. képp kuy tabax nag danga war a demande autorisation de construire. bu ñu ko ci dugalee ni koy insurer mooy yónnee ko service technique yi ci loolu nag dafa am ay type de dossier am na yoo xam ne dañ naa dossier ordinaire. Mm-hmm. moo yoo xam ne rek da ngay tabax rez-de-chaussée plus deux. Mm-hmm. wala plus trois. dossier simple boo xam ni laajul muy dem muy compliqué. Mhm. yooyu cadastre ak domaine lañ koy yóbbu bu avis favorable ñun buñ ko valider mu dem mairie. Mhm. Euh, beneen type bi mooy dossier complexe bi nga xam ne soit day nekk. immeuble yu yi. waa immeuble à grande hauteur. aywa. Mhm. à grande hauteur euh, cinquante mètres vingt huit mètres yooyu IGH la euh, wala. mu nekk établissement recevant du public. genre euh, euh, magasin yi nga xamante ni. wala ñu recevoir essence essence marché. Mhm. yooyu mooy dossier complexe. ok wala ay hôtel nga xam ne kat dafay laaj yeneen service yu ci mhm. en plus de cadastre ak domaine. Mhm. dina dem direction protection civile bu dee fii Dakar. dina dem environnement. bu dee école day dem direction conscience scolaire. parce que seen avis dañ koy soxla bu nekkee santé ministère de la santé direction constitution bi yore mbir santé mm. noonu noonu la dossier yi nañ koy tënkee léegi bu ab yëpp favorable ba yëpp baax urbanisme ñun ñu xool ko ak ba li nga xam ne lépp daal amul benn problème ñu valider ko buñ ko valider mu dem ci maire waaw mais am na quand même ñuy décrier quand même yéex yéex yi ci wàllu autorisation de de de de de construire yi parce que ca gën a bëri euh, peut-être dañoo xamul système bi nu muy doxee euh, ba tax bu ñu déposer seen autorisation yi du ñu am suivi ba war nga xamante ni peut-être délai yi bu ci waroon yem par exemple je pense que cinq jours la. su ma juumul. maa ngi lay wax léegi dossier ordinaire ak dossier complexe. Mm-hmm. bu dee dossier ordinaire vingt-huit jours la délai d'accord 28 28 jours. ok bu dee dossier complexe 40 jours. ok mais ci biir vingt 28 jours day dans les normes day nekk dossier boo xam ni amul benn problème parce que service dañuy saytu dossier bi dugg na euh, mu dem kadas exactement effectivement joxe nga extrait waaye extrait bi nga joxe baaxul. Mhm. bu ko kadas rejeté. benn processus ngay am voilà voilà le temps que ngay dem di corriger di ñëwaat. Mhm. Eh, beneen bi eh, kayitu kër gi mën na am problème wala nga dem doome ñun la eh, redevance yi fayu ko. Mhm. ngay war a xaar di fay ay redevance loolu tamit benn processus fii sax da ngay gis souvent. gars ñu bari dañu am bàyyi mais duñ fay redevance. waaw waaw surtout ça dañoo xamul ne euh, euh, chaque année. da war a dem au niveau des impôts et domaines. pour fay ko def ak waa impôts et domaines. Mm-hmm. Euh, pour yee donc askan wi ci loolu ñi nga xamante ñoom ñoo am ay baux c'est-à-dire nga am benn kayitu kër ñu ne la sa kayitu kër bi bàyyi la da war a am ay redevance yooyu fay at bu nekk au niveau des impôts et domaines ba ëllëg si biir boo bëggee lu ci autorisation de construire ñu mën la ko jox te fekk nag lu ñu kon daal di indiwaat ce dossier ça c'est des informations yu ñu nar ñëwaat voilà euh, beneen bi mooy euh, effectivement ci problème yi toujours mhm. euh, batale yi ñuy def batale mooy nga wut intermédiaire bu lay déposer sa dossier mhm. des fois mu rendre le compte des fois du la rendre compte mhm. parce que euh, bi ñu yore adresse email la ñuy demandé boo dugalee sa adresse email ñu jox la Euh, nga am identifiant ak mot de passe. Mhm. yow yaa mën a dugg sa dossier di ko xam. di ko xool malheureusement euh, ñu bari euh, ñiy yónni ñoo yore information yi parce que chaque fois bu dossier bi defee benn mouvement rek yaa am na message bu lay envoyé. mooy dématérialisation bi nga xamante def nañ ko ci wàllum. Euh, kon permis de construire yeeg lu jëm euh, ci euh, wàllum certificat de conformité yeeg yooyu noonu. de façon ci kanam danañu xool benn vidéo bi nga xamante ni nañu wan. ñoom waa ADIE nit ñi rek daal di defee mbir mi di agence de l' informatique de l' après ñu xool ak Mahim Ndiaye naka la ñuy duggee ci seen biir plateforme mais daal permis de construire moom bëri na moom. léegi des na beneen fànn boo xam ni en 2020. ci yeexaay boobu tamit tax na. Mhm. Euh, président jël benn décret. Mhm. Euh, euh, foofu nag moom ci au niveau de la mairie la wax. Mhm. bu fekkee am na. yéex yéex yéex yéex wala maire bi signewul mu jël décret bi ni kii kat représentant de l'État. bi nga xam ne mooy approuvé. moom mën na substitué wu pour signer la sa autorisation. waaw loolu moom yépp pour bëgg rek mbir mi gaaw la. Mm. mais mais autorisation de construire euh, est-ce que tey ñi nga xamante ni ñoom ñooy tabax cest à que à la source rek ñoom ñoo ko war a wut wala euh, ñeneen ñi nga xamante ni dañuy modifier yooyu seen kër yi parce que lu ci gën a bari dañ koy gis ñoo xamante ne dañuy tabax ba pare bëgg a teg yeneen étage ci beneen étage ci kaw wala bëgg a modifier benn néeg ñoom tamit dañuy am autorisation de construire. autorisation de construire muy tabax bu bees muy tabax buy modifier. booy changer ci biir. Mhm. defaat yeneen aménagement muy tabax booy yokk lépp da nga war a demander autorisation de construire. ah d'accord moom autorisation de bu ci nekk am na nu ñu ko tuddee kii autorisation de modifier la autorisation bon bii surélevation la. Mhm. mais lépp moom mënoo cee def dara ci bâtiment ca amoo autorisation de autorisation. Mhm. qui est signé par le maire et approuvé par le ah, représentant par le représentant l'État. tant que représentant bi approuvé wul bi nag. arrêté bi sotteegul. Mhm. loolu tamit baax na leeral. Mhm. donc ñi nga xamante ñoom ñooy modifier seen kër yi. bul ne rek benn néeg laay modifier euh, donc euh, du ma ut euh, jarul autorisation de construire wala nga ne damay tegaat beneen étage kon jarul autorisation de construire lépp looy def luy laal kër yi da nga koy rekk daal di wutal autorisation ba ci sax démolition. autorisation démolir moom tam bàyyiwul kenn. Mhm. tey jii boo amee sa bâtiment bu nekk sa kër nga bëgg ko toj. da nga war a demander autorisation de démolir boobu tamit euh, dañ comme ni ñuy instauré lii la mhm. technicien bi dina ñëw ànd ak yow ci terrain bi vérifier est-ce que réellement bi nga démo bëgg a démolir am na mhm. mais am na pièce yooyu déposé mooy euh, plan état des lieux mooy bâtiment bi nga démolir mhm. kayitu kër gi excès de plan cadastral taxe urbanisme de deux mille francs ak timbre 500 taxe yi ma lay wax yëpp nag ak timbre yi domaine lañ koy impôt impôt. impôt lañ koy impôt lañ koy versé urbanisme moom liquidation la lay defal. Mhm. nga dem fay ko fay. Mhm. loolu tamit lu ñuy leeral la. Mhm. parce que euh, toutes les taxes euh, moom état bi moom daf ko kii au niveau des impôts. donc ñun foofu la ñuy dem donc le requérant bu ñëwee dañ koy bindal benn liquidation. moom mu dem fay mu nit ñu. reçu reçu boobu mooy nekk ci dossier bi. Mhm. c'est très important euh, tey émission bi émission bu dal la tey mhm. nekkuñu ci chantier mais dañoo nekk ci sujet bi nga xamante bu am solo la mhm. muy euh, yenn ci ay euh, kon autorisation ak yenn ci ay certificat yoo xamante ni yow booy tabax que nga nekk particulier wala nga nekk un promoteur danga ko war a soxla dafa c'est obligatoire sax mun nañ ko rek daal di wax pour sa sécurité bopp mais aussi sécurité ñi nga xamante ñoom ñooy nekk ci futur kër yooyu mais Euh, donc Mahim Ndiaye mi jiite service régional de l'urbanisme euh, ci kanam ñu wan nan la ñuy duggee ci plateforme autorisation donc de construire mais laataa lool peut-être ñu poser ko benn question mu nga xamante ni peut-être Sénégal ñëpp dinañ koy poser naka ngeen di def ba amal suivi liggéey bi nga xamante yéen a ngi koy def yéen ngi joxe autorisation yi yéen ngi joxe certificat yi mais tey jii nii naka ngeen def ba suivre liggéey bi sur le terrain. waaw on a des services de contrôle. Mhm. Euh, am nañ service de contrôle euh, euh, donc euh, ñu ngi dem souvent ci terrain bi. Mm-hmm. les dossiers ñu ngi koy suivre par télédac. Mm-hmm. mais en dehors de ñun tamit contrôle bi y a mi ngi def contrôle IGB mi ngi def contrôle ñëpp bon donc ñun. ces trois services là dans le contrôle dañ ciy lëkkaloo parce liggéey bu ma def sur le au niveau du mm-hmm. bu ma defee sommation d'arrêt des travaux même de démolition su ma ko defee dama koy envoyer DSCOS. waaw donc parce que ñooy toj. mais danañ def sommation. danañ def sommation ñii kuy tabax souvent sa technicien yi ñëw ci terrain bi. vérifier ba xam autorisation bi est-ce que am nga ko et que ku ñu autorisé. am na benn panneau boo war a def ci sa chantier. da nga ko war a teg ci bunt bi ñëpp gis ko ñëpp gis ko. xam ni kat lii dañ la autorisé. Euh, bu ñëwee technicien bu ñëwee bu xoolee loolu euh, demandé la plan yi autorisé yi mu am cachet yi mu vérifier ni réellement. lan dem bàyyi la nga liggéey. mu bàyyi la nga liggéey. Mhm. loolu rek noonu lañu liggéey bi mhm. doxee. mais mais mais euh, aussi euh, bu euh, nit amee autorisation de construire ba pare bu tabaxee tey nan la ñuy war a mën a xamee ne que il a été conforme par rapport au plan qu'il la présenté. loolu ki tabax ba pare nag day ñëw demander certificat de conformité. Mhm. le certificat de conformité mooy la dernière pièce bi nga xam ni bon day am ci lotissement day am ci. autorisation de construire. certificat de conformité euh, le promoteur bi nga xam ne dafa def lotissement bëgg a jaay nit ñi bëgg am këyit il faut moom mu am certificat de conformité. Mm. pour permettre au notaire mu dem conservation wala domaine. Mm-hmm. ñu defal ñi seen ay këyit. Mm-hmm. bu dee bu dee euh, autorisation de construire tamit euh, soo paree tabax ba pare da ñëw urbanisme demande certificat de conformité. Mm-hmm. bu boobaa la demande certificat de conformité urbaine day dem ci terrain bi ak ay technicien ñu saytu ko xool liñ la autorisé ak li nga def ànd na mhm. bu àndee ñu defal la kayit bi defal la conforme na mhm. loolu beneen type de contrôle la boo xam ni et que loolu tam dafa am njariñ ah, certificat de conformité certificat de conformité parce que njariñ bi eh, ci ci ñiy tabax euh, am na ñu ko xam am na ñu ko xamul waaye euh, dina la permettre yow nga am ay exonération hmm. waaye parce que boo amee certificat de conformité boo demee doom nga demander l' exonération cinq ans. dañ la koy defal impôt yi voilà. dañ lay mhm. exonéré bu fekkee aussi euh, immeuble la boo tabax nit ñi boo amee set de conformité di dina permettre appartement yi nekk ci immeuble bi. Mhm. x appartement lu mu mënte doom. Mhm. ku nekk mën na am kayitu këram. loolu njariñu certificat d'entreprise mhm. notaire bi mooy def liggéey bi àggale ko mu dem domaine ñu morcel nga am say morcellement mhm. ku nekk am sa titre foncier individuel bu dee immeuble titre foncier la mhm. individuel c'est ça c'est c'est important xam nga kayit yooyu noonu nit yi peut-être dañoo xamul la peut-être importance am euh, ci dispositif bu euh, euh, tabax mais dafa am solo bu baax a baax maintenant dañuy bàyyi moom Mahim Ndiaye mu dem rejoindre bureau ñu ñëw ak yéen ci rubrique nga xamante ni moom mooy rubrique euh, ñu bàyyi ci xel euh, bon a savoir euh, ci ñu won leen naka la ñuy rek daal di duggee ci plateforme Télédac dañoo dem nag ci site ADIE gis fa benn vidéo bu gàtt bu ñuy rek expliquer naka la ñuy rek inscrire après bu ñu ñëwee ñu ànd kon ak kii di Mahim Ndiaye mu dugg ci plateforme moom wan ñu suivi dossier yi naka lay demee. Pour faire une demande de permis de construire, veuillez vous rendre sur la plateforme Télédac accessible à l'adresse suivante www.teledac.gouv.sn. Pour dérouler une procédure, il faut au préalable créer un compte. Rendez-vous à l'espace e-citizen. Remplissez tous les champs et validez votre inscription. Cliquez sur Créer un compte afin d'accéder à cet espace. Un mail vous sera envoyé pour continuer votre inscription. Pour vous connecter à votre compte, veuillez vous authentifier avec votre login et mot de passe. Pour faire votre demande de permis de construire, cliquez sur la partie réservée au secteur de l'urbanisme, puis sur Autorisation de construire. Ensuite, déposez une demande. Remplissez la nouvelle demande et passez à la page suivante en cliquant sur Étape suivante. Vos informations personnelles sont pré-remplies sur la base de la fiche d'information renseignée au préalable. Vous devez renseigner toutes les informations sur la demande d'autorisation de construire. Cliquez sur Étape suivante pour continuer le dépôt de la procédure. Vous avez également la possibilité d'enregistrer un brouillon. Pour continuer, insérez toutes les pièces jointes et cliquez sur Étape suivante. un récapitulatif de toutes les informations sur la demande vous est proposé. Pour valider votre demande, cliquez sur Soumettre. Une fenêtre va s'ouvrir pour confirmer la soumission. Vous verrez sur le tableau de bord la liste de tous les dossiers déposés à partir de votre compte pour vous permettre ainsi de faire le suivi. Le numéro de votre dossier vous est également envoyé par mail. clair. léegi dans la plateforme donc fii da ngay gis les types de procédures. Mhm. les types de procédure si c'est sur la demande d' euh, autorisation de construire autorisation de construire waaw wan euh, ñu kii bi ngay gis dossier en cours. Mhm. dossier traité et dossier disponible disponible mooy autorisé nañ ko ba pare. voilà donc depuis la plateforme da nga gis nombre de dossiers yi nga xam ni traité nañ ko donc dossier en cours man tey jii eh, bu may xool oh, da ngay gis eh, ci plateforme gis nga tur yi ngay gis. Mhm. numéro dossier bi. Euh, donc statut bi fi mu toll. Mhm. Euh, kon en fait da ngay am visibilité globale sur sur euh, par exemple kii bi fi mu toll. lépp fi mu toll. d'accord tey yow boo amee sa dossier nga ñëw fii euh, il suffit ma cliquer ci sa tur ma xam dossier bi fu mu nekk. soit mi ngi mairie wala mi ngi tel service. d'accord euh, type de rejet yi aussi dama la koy jox. Mhm. comme ni ma koy gisee yow mën nga ko gisee dans les normes. d'accord voilà léegi euh, tey jii bu dee dossier yi nga xam ne man euh, dafay egsi si mon niveau. c'est-à-dire wër na instruire nañ ko. Mhm. ba ñépp joxe seen avis. Mhm. maanaam cadastre. voilà impôt. voilà. ak euh, bu dee euh, euh, ordinaire. ordinaire kadas ak domaine. waaw bu dee complexe. ci la yeneen service yi di dugg mhm. man bu ñëpp joxee. Mhm. léegi dossier bi day traitement complet. Mhm. tey jii xoolal bu ma defee bu ma cliquer fii complet j'ai des dossiers yoo xam ne ñëw na au traitement complet. d'accord bon léegi damay ubbi benn dossier ngeen xool. dossier bi gis nga dossier bi ni muy demee. Mhm. les informations. ci nit ki. Mhm. Mhm. mooy li ma doon wax. mu tudd date de naissance. numéro téléphone adresse email. plus la information sur la demande d'autorisation. il suffit que ñu instruire ko démarrer ko dugal ko ci télétac bi tous les éléments dañ koy dugal ci biir. tout à fait. léegi bu éléments yëpp duggee gis nga ko léegi euh, ñu instruire ko mu dem euh, tu vas voir historique su ma tapé historique gis nga. lépp ngay am historique les éléments. Mhm. gis nga dossier bi mu duggee avis défavorable yi. ak avis hmm? favorable yi avis favorable ba léegi da gis ni dossier bi dossier bi sotteegul. Mhm. parce que gis nga rejet cadastre bi. Mhm. avis défavorable prendre en compte la cotation 1,77 sur l'extrait de. gis nga li mu wax léegi bu ma cliquer fii. ki ki def dessin bi dafa am erreur ci code bi. d'accord parce que gis nga li mu la wax prendre la cotation 1,77 sur l'excès de plan cadastral. 1,77 mhm. lu am solo la. Mhm. ci ci parcelle. donc dossier bi tey jii. man lii moo tax ko. voilà bu may traité nii. Mhm. da ngay gis ni xol si suspendre lay def. bu ma defee si suspendre man damay def satisfaire rejet di cadastre. satisfaire rejet du cadastre da ngay gis ni satisfaire rejet du cadastre. regarde bu ma validé mu ngi à l'état suspendu pare na. dem benn traité nañ ko kii. Mhm. yu mel noonu daal ngay gis ni souvent. moom mooy bloqué mooy xaw a bloqué yi te bu ko borom corrigé rek bu ko dugalee. ñu dugal ko dañ koy valider. mais juste peut une toute petite question balaa ñu jeexal euh, donc rubrique euh, donc ñu bàyyi ci xel comment le par exemple ki déposé di def pour mën a am information yi regarde regarde fi mu ne nii. Uh-huh. bi bii adresse email bi. Uh-huh. yaa ngi koy gis. boo dugalee dossier bi yow déjà bu la joxee identifiant ak mot de passe yow am nga. visibilité ci sa dossier. donc mouvement bu mu def yaa ngi jot message. d'accord c'est clair. par mail. yaa ngi koy uh-huh. jot par mail. kon batale jaratu ko. jaru ko jaru ko parce que batale bi. mooy indi tey jii dossier bi xam nga ni fi ne traité nañ ko. Mhm. bu fekkee borom mi ngi si adresse am yi. Mhm. courrier mi donc day xool rek. gis ko xam fu dossier bi nekk. effectivement mu dem corriger liñ koy corriger loo ngoon wala ci kanam tuuti bu ko indee dañ koy dugalaat ci plateforme c'est très très important en tout cas leer na ñu jàll ci beneen rubrique. waaw ñu ngi leen di wan euh, archive division régionale euh, de l'urbanisme mm -hmm. archive yi euh, vous verrez que bu ñu paree ci autorisation de construire c'est-à-dire nit ki jot na autorisation de construire am mhm. autorisé nañ ko dossier bi lépp mat na mm. moom dañ ko jox copie mu dem d'accord li ci des ñu archiver ko d'accord moom ngay gis nii lii yëpp nag boo ko xoolee mais archive yi depuis 1900 ñaata la ngeen commencé archiver kayit yi fii. Ah, tu verras de 51 et de 52. ah euh, déjà regarde bii dossier 52 la. ah 1952. Mhm. gis nga ko mi ngi nii euh, avec. Euh, ah, il faut que je vous montre des papiers. voilà voilà <laughs> ngi nii. Ah. et que ma lay wax ni lépp numériser nañ ko. ah d'accord ok. sauvegarder numériser mi ngi ci machine yi. Uh-huh. waaw mais mais peut-être est-ce que mën nañu peut-être wane un peu papier ni ngeen ko ni ngeen ko conserver. parce que xam nañ ne max dafa gaaw ci këyit. mais vraiment conservation bi c'est c'est extraordinaire. c'est voilà un papier qui euh, qui a quand même euh, voilà qui date de 1952. 1952 comme on dit vraiment la conservation elle est elle est parfaite. voilà lii yëpp dañ ko dañ ko archiver numériquement. d'accord yëpp ñu ci machine yi donc tey jii euh, tu verras que lii euh, effectivement moom mooy gis physique mais ñu ngi ci biir machine yi. d'accord. 52 tu verras ay copies ça c'est 59. M3 59. que tu verras permis dossier de construire autorisation de construire. 59 mhm. gis nga. d'accord voilà. Euh, dossier. c'est un privilège hein, de tenir ces dossiers-là entre les mains. oui. aut août 1960. waaw nii la ñu gardé archives yi vraiment rangé ko année par année. Mhm. Ah, voilà. mais tey par exemple euh, pour euh, peut la question qui euh, peut-être va être posée par les téléspectateurs tey ku koo xamante ni amoon na këyit. wala autorisation de de de de construire. moo xamante ni 1960 wala avant indépendance est-ce que tey jii nii këyit bu ko réeree moom mun na ñëw fii nii wër ko. ci seen waaw waaw mën nañu wër ko bu fekkee am nañ référence yi. d'accord il faut ñu jot référence yi bu ñu amee référence yi ñu wër ko il nous arrive ay nit ñëw fi perte ay dossier ñu am référence yi ñu génneel ko ko fi jox ko. Mhm. loolu moom c'est une faveur wala nit ki moom. loolu dafa baax. Mhm. parce que bon Sénégal souvent conservé. Mhm. am na ci ñu bari ci ci toxu yeeg yooyu la ñuy perdre seen papier mais heure bu ñu ñëwee fii rek dañ dañ leen di jàppale. jox leen ci tout à fait c'est très très important en tout cas merci pour cette découverte. Mm-hmm. Euh, muy archive yi nga xamante ni moom moo nekk service régional de l'urbanisme nee naa c'est un privilège de tenir ces genres de papiers yi nga xamante ni euh, daanaka euh, am na ñu ci gën a bëri avant indépendance la sax. Mm-hmm. te c'est bien conservé mu nekkoon découverte donc émission Sama Kër yéen ñi am yenn ay kayit yu leen reer jëme ci wàllum tabax la ñu wax bu nekki am ngeen référence yi mun ngeen jege donc organisme ñu dimbali leen ci euh, bu baax a baax gindi leen euh, ci wàll woowu kayit yi nag mu mel nii en physique noonu la nekkee kon ci biir euh, machine yi maanaam dañ ko numériser loolu yëpp bokk nag ci xeetu tolloo ak fii jamono daal di nekk maanaam ci jumtukaayu xarale yi jàngeen jëf jërëjëf merci merci euh, au service euh, régional euh, de l'urbanisme ci waxtaan bi nga xamante ni sekkoon nañu ko ak ñoom ci kanam sax pour jeexal il faut ma duggaat ci biir li nga xamante ni moom mooy archive yi parce que c'est tout simplement magnifique yi nga xamante ni loolu rek lañ fa rek euh, euh, daal di gis mais en attendant ñu ñëw ak yéen ci page de pub ak suñu euh, partenaire bi di soko sim Industrie xam ngeen ne ñoom ñoo tabax Sénégal laata indépendance ba léegi nii te ku bëgg tabax bu dëggër bu mucc ayib rek seetal Sococim Industrie ñu ànd ak ñoom ci page de pub ñëwaat. benn itti rek la am muy bokk ci ñuy taxawal ak tabax taax yu kawe te wóor lool rax ci dolli di saafara yéenay bépp client yoon wi sori woon na te waaye sant naa yàlla bi ma ànd ak Sococim ak Sima 325 ak 425 bi kenn dul gam-gamle saa su ma wàccee damay ànd ak cawarte ak bànneex bu mat sëkk ànd ak Sococim ngir liggéey bu wóor ci bànneex Sococim cette euh, page de pub te gis ngeen ba ñu paree ci page de pub bi lañ ci toftal muy euh, les bons plans nekk rubrique bu bees bi ñu leen indil kon ci seen émission euh, sama kër depuis ndoxteel bi ba léegi ñu ciy ànd ak assurance la providence nee naa la nag ñoom ñooy def assurance autrement ñu indi leen nag benn kon produit bu am solo mooy yéen ñi nga xamante ni yéen am kër mun ngeen a rem souscrire ci seen produit ba ñu duppee kon jàmmi kër ku ne nag jàmmi kër xam ngeen ne loolu nag tawféex kese la la ñu dem euh, ànd ak waa euh, kon euh, assurance la providence ak Abdoul Aziz Fall mu expliqué ñu lan mooy produit ba ñu duppee jàmmi kër ñu ñëwaat seen jëf jërëjëf Dieynaba effectivement jaaroon ngeen fii ñu doon waxtaan ci affaire assurance jàmmi kër pour sénégal yi. Euh, wax nañ ci package jàmmi kër bi li mu ko composé muy assurance incendie assurance vol assurance brise de glace non plutôt assurance dégâts des eaux ak assurance euh, responsable social de famille même brise de glace mun nañ ko ci boole su ça dépend ci ki ko jël mais te loolu yëpp mooy lu ñu koy waxee woon pour accompagner Sénégalais yi amul moyen mën a am assurance ci seen kër yi en cas d'incendie kii moom garantie bi nga xam ne moom moom la gën a ni gën a craindre waaw donc euh, euh, te loolu yëpp dañ la ko yombalal pour que ñu mën ko am ça ne leur coûtera même pas cinquante mille francs pour ñu am assurance bi. Hmm? alors donc loolu daal mooy li nga xam ne waxoon nañ ko fi ba passé tey nag ñu bëggoon def benn benn euh, transition pour wax ci affaire assurance construction ndax li waral loolu mooy li fi xew bëgg démb muy lan muy immeuble bi effondré ci. Euh, Colobane Bel Air alors loolu nag dafa war a nekk loo xam ne nit ñëpp dañ ci war a xaar pour lii bu ñuy tabax kër surtout ñi nga xam dañuy tabax immeuble parce que assurance dafa war a am ci seen budget bu ñuy bu ñuy bu ñuy tabax tabax euh, immeuble bâtiment boole ci assurance tout chantier ak assurance décennale alors loolu bu ñu ko defee au moins dina leen mën a aider pour que. pendant bi ñuy tabax bu nekkee am na problème chantier surtout chantier bi moo ko jël bu nekkee ne tabax nañ ba pare ba dëkk dix ans après bi ñu xam ne recevoir nañ kër gi bu nekkee kër gi dafa daanu effondré woo ah ci affaire dëgëraay bi dem noonu assurance nationale mën leen rembourser ñu mën a tabaxaat ñaata immeuble ñoo fi daanu yoo xam ne seen borom amuñu assurance duñ ko sax xalaat te dafa war nekk loo xam ne préoccupation la alors loolu nag moom laa bëggoon vraiment euh, gën ci xëcc at attirer attention nit ñi public sénégalais pour ñu ñu koy xalaat ñun comme ñun suñu slogan mooy assurance autrement assurance à providence pare na pour jàppale pour entreprise yi ñu tabax que individuel personne individuelle yi nga xam ne dañu bëgg a tabax immeuble am prêt bancaire pour accompagner leen nu mu gën a yombee ñu mën a duggu am def assurance tout chanque ak assurance décennale mën nañu ci accompagner parce que ñun da bugg assurance lekk jël sa prime balaa ñoo balaa nga gisati mu am sinistre non dañu bugg am partenariat boo xam ne bu ngeen soxla ci conseil mu leen accompagner conseil leen ba ngeen comprendre li nga xam ne li ci di dugg bu ëllëgee problème amee ngeen mën a am ku leen jàppale ba ngeen dugg seen jëlaat xaalis tabaxaat seen kër loolu daal mooy li nga xam ne li vraiment ñu daf dafa nekk loo xam ne suñu préparation la pour sénégale yi pour que ñoom ñu xam ne képp kuy tabax immeuble wala demee noonu kër war na mën a ñëw jël assurance tout chantier am na question yu ñu lay jox accompagner la expliquer la fi nga war a jaar yépp pour nga mën a am assurance bi bu nekkat ne léegi assurance bi touriste jeex na tabax bi jeex na nga am assurance décennale bu lay couvrir pendant dix ans ah bu on nekkee kër gi dafa dafa effondré wu loolu vraiment ku nekk Sénégal bu ne war na def loolu ci xelam te ñu comme on a dit assurance autrement la dañ fi nekk pour dimbale euh, néew ju doole ci côté bu nekk ci affaire assurance bu ñu soxla. Sarr di remercier bu baax a baax waa assurance la Providence assurée donc autrement moom mooy seen euh, kon euh, mun naa ko wax euh, seen devise mais ñun tamit fii ci émission Sama Kër mooy wan leen li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum tabax mais aussi wan leen lu ñeel wàllum foncier ba saa soo leen di dugal seen xaalis wala ngeen bëgg am kër ngeen am ko ci ay anam yu baax am ko tamit ci anam yu wóor nag archive bi nekk ci service régional de l'urbanisme euh, fii nag la ñuy tëjee émission bi te nag découverte bu am solo lañ fi rek euh, daal di def nee naa odeur de papier gardé est tout simplement magnifique bravo à ces services yi nga xamante ni ñoom ñooy denc archives yi di denc suñu mémoire ak suñu histoire merci à vous donc émission sama kër incha allah dina ñëwaat euh, ci beneen beneen yoon maanaam ay bés yi ñu dëgmal ci yeneen i événement yeneen i information yeneen i rubrique yu am solo di leen jaajëfal a baax beneen yoon merci à toute l'équipe de production jàngeen jëf Sococim Industrie assurance la providence ñoo leen doon may